bismillaahi rahmaani rahim mbokk yi mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam tey nag xam naa ne kàddu gi dina xaw a jafe torop ci man parce que sama xol dafa fees ndax dama ñëw fii tey si Touba mosquée fi xam ne fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màgge fi laa defe lépp sama wayjur di Moustapha Cissé ma koy sant di ko gërëm ak suma yaay soxna Njaxat Géy di ñaanal suma papa yàlla guddal fanam oh. bu baax yàlla yàggal ko ci kanamu jaboot gi di sant nag sama bokki bopp yi nga xam ne tey ñoom laa àndal fii gis leen ñu daan ànd ak sama papa ñenn ñi di samay njaay ñenn ñi di samay pàppa ñenn ñi di samay mag daan ànd ak sama pàppa ci liggéey bi daan ko gunge bi mu toogee ba tey ñenn ñi dellu woon ci kër yi toog booba ba tey bi ma ñëwee si dëkk bi ñoom ñëpp ñu ñëw jox ma loxo ànd ak man ne ma fañ àndoon ak sa papa dañ fay àndoon ak yow kon nag jigéen ñooñu papa yooyu ak jeunes yooyu maa ngi leen di sant di leen gërëm tey nag wax ji dina diis lool sax si man ndax politique moo ma fi indi maa ngi sant jeunes yi ma àndal di sama moroom yi di sama xarit yi nga xam ne ñoo juddoondoo màggandoo yarandoo fowandoo bi ma agsee si dëkk bi ne damay politique ndax li may wax nii je lance un appel solennel le président de la république président Macky Sall am na jeunes yu nekk fii sama ginnaaw tey bi ma demee wax ak ñoom dañ ne ma jàppale sàll Macky ak moom man maa dem convaincre leen wax ak ñoom ñu ne lépp luñ jàppoon dinañ ko bàyyi pour jàppale la président Macky Sall ñoruñu Ousmane Sonko ñoruñu yow en tant que jeune juddoondoog ñun yaroondoog ñun màggandoog ñun yow yaa ñu yor may sant sama grand frère jiili Djili maa ngi lay nuyu di la sant yow sarak laa daan àndal ñoo fowandoo ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp soo nekkee si dara di si liggéey ànd kook say moroomi jeune di def développement di former ay jeune ma ñëw si dëkk bi di politique ne politique de développement lay def nga tàllal ma loxo pour ñu ànd maa ngi lay sant di la gërëm di sant jeunes yi nekk sama ginnaaw su ma limee damay juum waa 28 waa marché Ocas waa Touba Xayra ak jeunes yëpp su ma limee damay juum gars yi yéen a ngi may gis maa ngi leen di gis maa ngi leen di tàllal loxo di leen ñaan ne lii ma nekk ne dama bëgg ñu ànd si pour njariñu dëkk bi pour njariñu gox bi tey ñun ñoo soxla mais yéen a ñu si mën a jàppale. ñun ci état lañ nekk pour les je suis chargé de mission à la présidence de la république si cabinet président Macky Sall mu woo ma téléphone ci micro laay wax nee na damaa bëgg Pape nga dem Touba loo man si jeunes yi nga jàppale ma si waxtaan ak ñoom sa yaay yi la fa sa papa defoon si ñoom nga dimbali ma si ma ñëw waxtaan ak yéen ngeen tàllal ma loxo nangu loolu noonu maa ngi leen ciy sant di leen xam ne du ngeen ruus sama digganteeg yéen. ndax lépp lu état am te man ko te di ko defal jigéen wala jeune wala ndaw pare nañ pour dem indi ko fii waa dëkk bi jariñoo ko parce que par état lañ bokk ñu ngi ci cabinet président de la république kon am na luñ man tey jii buñ ñëwee fii nii ci dëkk bi depuis fi accès man fee joxe lu mat soixante-dix millions ça veut dire état moo ñu accompagner ma leen di waxaale suñu partenaire sunu xarit mon cher ami mon cher grand frère la directeur Doudou Ka di directeur de AIBD jiite coalition Dogu pour le Grand Sénégal tey jii nii na ngeen xam ne lépp luñ dugal si dëkk bi loxoo man si lépp luñ dugal si dëkk bi moo ne ma Pape demal fu amul làmp engagé ko dinaa ko jënd nga indi ñi bëgg financement loo wax ak ñoom dinaa leen si dimbali jeunes yi pour machine yi noonu permis yi noonu lampadaires yi noonu jeu de moyens yi noonu kon nag bu ñëwee soxla dara dinañ waxtaan ak yéen ni leen président de la république la ñuy jàppale président Macky Sall kon bu ay jeunes ñëwee ànd ak ñun si liggéey bi di ñu jàppale ba ñëwee ba tey ànd ak ñun di wër jaadu na bu ñëwee ñu sant leen gërëm leen te na ne état am bari na état am na financement état am na ay projet pour jeunes yi ñu xam ne président de la république am na DER am na promise am na projet bi ma daataa ñëw damaa wax ak moom ne ko monsieur le président ndaw ñooñu ngay wax Touba bu ñu demee lan la ñuy teg seen loxo mu ne ma Pape soo demee jëlal engagement man maay président de la république waxal ne di nga joxe financement waxal ne di nga leen dugg ci formation waxal am il faut ndax jafe-jafe président de la république dafa am Touba bu yàgg ba tey loolu mooy dëgg élection yi fi jaar fépp day gagné Sénégal gépp di perte Touba kon il faut ñun jeunes yi ñu jàppale ko ba mu gagné Touba pour li nga liñ diggante ak yéen ñu mën koo def buñ diggee financement te président perte Touba dinañ am yaraangay dem jàkkaarloog moom di ko laajaat financement kon jeunes yi sama mbokku jeunes yi bëggee liñ diggante ak yéen ñu def ko muy ay financement muy ay projet muy ay formation nañ jàppale président de la république ndax moo fi nekk te moom la fi yàlla de jiiri la ma la waxoon laa lay wax dinañ joxante loxo si formation professionnelle si emploi lépp lu ma man si samay pexe bopp parce que ministres yi samay grand lañ samay xarit lañ directeurs yi samay xarit lañ samay grand lañ fàjjaane bi yor promise yor financement jigéen ñi duñ tàggoo man sama jigéen la sama xarit nee na pare na pour accompagner jigéen ñi Thérèse Faye Diouf bi yor projet wax naa seen moom mais pour loolu am il bu leen neexee bu leen ko seeti bu leen ko wëri ñëw leen si man ne Pape yaa ko waxoon ndax li may wax mi ngi koy dégg président de la république monsieur Macky Sall maa ngi lay lancé appel solennel xam nga ne jeunes yi nekk fii am na ñoo xamante ni peut-être bu ma ñëwul woon wax ak ñoom duñ voté pour Benno Bokk Yaakaar ñu jël engagement pour voté Benno Bokk Yaakaar kon ay la yeween monsieur le président yaa ngi dégg sa doom Pape Lo mu taxaw fii di wax ak ay nawleem jël fi ay engagement jël fi ay promesse pour ma man koo àggale il faut nga dimbali ma mu le président lu ñu indi si askan wi lañ bëgg président financement lañ bëgg pour ndaw ñi ndaw ñi bañuñu li nga def bëri na Touba indi na fi autoroute Ila Touba def na fi hôpital 40 milliards fii ñu taxaw nii xam ngeen ne da daan pas bi indi na ko fi nee na 12 ans yii di ñëw dina fi def 126 pour ay pavage kon mbokki Touba jeune Touba maa ngi di ñaan ñu voté Benno Bokk Yaakaar ngir président de la République mais ñu voté ko ngir seen doom Pablo ndax day wax ak président de la République te man naa koo ñaan mu defal ma mën naa wax ak moom mu defal ñu kon bu loolu amee buñ voté ba le 31 président de la République am majorité Touba lu bari dina mën a ñëw financement dina ñëw projet yi dinañ ñëw dinañ essayer dimbali jigéen ñi jiiri jëlal yeneen engagement dinaa indi yeneen i machine dinaa indi yeneen financement dinaa indi yeneen projet wax dootuma tudd turam ndax samay kilifa dañ ma aaye may tudd turam léegi kooku nga wax Ousmane Sonko awma lu ma koy tontu le 31 jeune yi Touba ndawi Touba jigéeni Touba dinañ ko tontu ndax la woon woon ne na de incha allah yaa ñëw jeunes yi xam nañ lañ bëgg xam nañ ne état moo yor financement yi état moo yor projet yi encore une fois ab député mën ta defar ab dëkk surtout député opposition député pouvoir yii bu ngeen leen falee di ngeen leen mën a poñe ne li ngeen ñu digeen indi leen ko li ngeen ñu waxoon def leen ko soxla nañ leen ñëw wax ak yéen ñi ngi ñaan yàlla bu ngeen ñu voteelee ba président de la république am majorité ëllëg incha allah du ñu rus a ñëw si yéen laajaat leen wala tàllal leen loolu deuxième bi mooy bu ma nee waaw li nga wax si tête de man ñaari liste yi boo doon bu dee politique gu ma ma jël liste Benno Bokk Yaakaar ndax sëñ Galas Kaltoom Mbacke sa la moo ko jiite sëñ Cheikh Gaynde Fatma Makhtar Diop soxna Ami Mbacke seen mbokku jigéen d'âge di cadre de haut niveau Mariama Diallo sage-femme d'État kon liste boobu Rokhaya Diouf de Mbacke liste boobu moo ma gënal beneen liste bi. kon liste bi nga xam ne moo mën a indil dara Touba moo mën a indil ndawi Touba dara moo mën a indil jigéeni Touba dara mooy liste Benno Bokk Yaakaar. loolu la je